naataal fanweer ak juróom-ñett bés dina ñëw Jésus dellusi ci kaw suuf ni mu ñu ko diggee dina ñëw ngir dajale njabootu yàlla yi ñiy dund ak ñi dee ñun ñépp danañu fekki borom bi ci kaw dëkk ak moom ba abadan ñi gëmul yàlla dina leen àtte xamuñu kañ lay dellusi si wante war nañu ko waajal